jawaaba li baabi charri miftaaxaw sama patt jiiba ni patt ngeen naan ma tontul ñi lay xas yëguloo ni musiba yi tëju ci addina ci magasin caabi ji koy ubbi mooy tontu waxtu wa tontu ubbi nga musibay caabi waaye bi bi mu ci tega ma ta déglu daf ne amma tara al usda tuxsha wa hiya saamitatun falkalbu yaxsha la amri wa huwa nabaaxu nee na gisuloo xaj ni lam ñuy réy te ay dàll rek a koy dàq gisuloo gaynde ni gémmiñ gi gàtte te bu ne salaamaaleykum rek ñëpp abal ko ma joxe ci exemple góor ga dafa yónni doom ja ni ko tibbal na safara tibbal na xalu safara xale bi génn gis gaynde gi bóof bët yi xonq cooy yi mu defee ne taal la jël bant ba di luqati bët ba gaynde gu jigéen gi ni gaynde gu góor gi wax ci mu ni ko kii daf ma réere te man duma wax ak ku ma réere xale ba luqar ci luqar ci xalu safara wi te génn bàyyi ba yàggaayu xale bi jàpp ko mu génn doon xool xale ba séen ko ca kanamu gaynde ga mu ne gay faf ni dara jaaxaan mu ne ko këlee ma xam moo tax ku la réere ku ne noppil ci moom sayiduna muhammad saxaaba yi dañu ko ne nan la ñuy def ba amuk yëkkati ku ëllëg ca kanamu yàlla mu ne ku bëgg a yëkkati ku ëllëg ca yàlla da ngay lewat ci ku la réere xamuloon ci la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci la Cheikh Al Hadj Aziz rawe ñëpp ko cuul cuulee mu ne pat tànk xotti yoo xormay diine sëñ Abdou du tontu boo laalul tariqa sëñ Abdou du tontu boo laalul njabootu diine gi sëñ Abdou du tontu leneen loo ko mën a wax pour moom baax na ca la dem dem ca dem ca ba réer nit ñi wëlbati ko feeñ ci yàlla ba mënatu la réer ci xolu nit ñi góor baax gën a sëwanu ca Tiwaawan ca béjjaaw bale ku ko teg ci sa kanam wëlbati ko di def njaaxum illaahi mat ngaa moytu yént yàlla Muhammad saxaaba yi dañu ko ne nan la ñuy def ba yëkkatiku ëllëg ci kanamu yàlla mu ne ku bëgg a yëkkatiku ëllëg ci kanamu yàlla da ngay lawattiku ne réere ñu ne ko ak mu ne wa tuatiya man xaramaka koo xam ni pexe mi yëpp mooy nga ñàkk li nga am yow sa pexe yëpp na doon nga fexe ba mu am faggul sa noon lu baax ku ko mënagul départ go waxuma ak di yegg fekk sa noon bu la noonu ba loo wax mu ne noonoo nga faggul ko lu baax ku ko mënagul départ go waxuma ak di yegg baatub noonoo waa Ndar dañ ko bëggoon moo tax góor ga ca Bonacare ba sëñ Babacar ci wàllu sociologie muy woy di ci jaxase tubaab naan wa xaytuma laqaytu minhum waxidan yaqulu mais eh bien yakunu shahida eh bien lada wadaa'ihim maarufun non non wa way way baynahum maarufu il faut il faut muallafun bila ajal si si lada taxqiqi qawlin wa amal wa zaaka daabun musbitun maa paska wa sabata lafta alxadiisu eska ah sëñ bi waa boor bi dañ ni naa ko waxaat kon beneen ndigal jiwaat na ci dewu Bakar